bés bu ni amal at mu jot fii si Kébémer association bi di askanu Kébé daal di amal ab don de sang loolee waral njiital kërub pajukaay yi di xamle ñàkkum deret gi ñuy noté fii ci diwaanu Louga. ñàkkum sang mi waxuma la si Kébémer mais c'est c'est dans toute la région de Louga parce que dangay ngay dem euh, am malade nga war ko référer au niveau de l'hôpital soo demee duñu am sang dañuy obligé ñuy wax ni parent malade bi nañ ñëw ñu mun leen euh, piquer pour ñu mun ku bokk ak malade bi groupe te xam nga loolu aussi vraiment nu doy waar la attente bi attente bi rek mën na indi ay jéyam te chaque fois ñu ngi ciy dégg ay cas yu graaw yu ñu ciy am macha allah. ci loolu nag askanu Kébé nag noppi nañ ngir jàppale askan wi su lu nu mel. dañu créé benn fichier de tous les cadres yu xam ne ci dëkk bi ñu organisé bu jëree ñu def si ay centre de santé bu jëree ñu jàppale nit ñi ci affaire santé danañ ko def. yooyu yëpp suñu programme la ñu maam ñoo sancoon Kébémer tey nag jot nañu jot suñu wàll ci Kébémer leneen li on est dans la solidarité danañ fi jàppale nit ñi li li ñu bëgg a tabax na muy foyer socioculturel ça c'est un instrument de développement de coopération culturelle mu nekkoon ab bés ñu koy amal at mu jot fii ci diwaanu Kébémer association askanu Kébé di ci fësal seen i plan d'action waaye tamit di ci nemmeeku as